nit ki bu dogee pare dafa war a jël loo xam ne dafa tàng lu tàng ndax biir bi mën a yeew tuuti ndax mu wax naa sànq mi mi ngi toog 10 euh, heures wala 12 heures de temps yoo xam ne ni euh, lekkul léegi biir bi daanaka lu mu waroon a fonctionner maanaam digérer aliments yi dootu ko defeti donc lu si gën mooy mu jël lu tàng pour mën a yee organisme waaw yee yaram bi ba nga xam ne nii biir bi dina mën a dina mën a continuer di def liggéeyam ni comme ni ko waree maanaam reesal lekk bi. lu tàng loolu mën a doon café pam suukar wala ataaya wala kinkiliba wala meew ak meew bu tàng def suukar tamit ndax suukar bi dafay tax tamit euh, muscle euh, organisme gën a yeew muscle tamit gën a gën a mën a yeew ndax dafa am suukar bi nga xam ne rapide la rapidement dafay dafay yéegal glycémie bi maanaam dafay am benn créer benn hyperglycémie bi yëpp mën a mën a yeew kon suukar bu mu manqué woon ci journée bi yëpp da koy commencé di ko récupérer nànk-nànk waaye waruñu tamit euh, def forcing maanaam war a jël tamit jël ay suukar bu bëri koor dafa war a jëriñ waaye warul lor nit ki donc bu buñ defee façon lekkin yooyu mën na indi li ñuy wax naan gàllankoor maanaam mën na indi hyperglycémie wala muy indi beneen problème boo xam ne tamit nit ki xam ne ni dafa am jàngoro wala dafa am yeneen feebar yoo xam ne ni problème suukar la wala problème bi tension wala euh, yaram bu bëri mun na ko mun na koy mun na koy yokk donc loolu dañ ko war a dañ ko war a moytu buñ dogee dañu def quantité suukar bi yem ñuy dem nànk-nànk ba ñuy tëdd ji

lant yi tamit wala ñebbe tamit am na petit pois tamit am na si tamit si suukar yi ak tamit li ñuy wax tamit euh, foño bi tamit am na am na tamit beneen wàll muy les sucres simples maanaam suukar yooyu xam ne ni facilement organisme da koy digérer donc mooy suukar yi bi ñuy utiliser pour defar pour suukar suñu café wala suñu ataaya ak tamit boisson yi nga xam ne dafa am suukar tamit donc loolu mooy indi loolu mooy loolu la yaram bi soxla loolu mooy indi énergie bi nga xam ne yaram bi soxla na ko

wala problème insuffisance insuffisance cardiaque wala yeneen yeneen ma yeneen feebar yoo xam ne ni moo xol bi ñoo ànd donc loolu ñu ko war a ñu ko war a moytu surtout koo xam ne tamit dafa am yaram wala mu am li ñuy wax hypertension ak koo xam ne tamit amul tax kàttan kii dafa war a moytu ndax graisse moom surtout boo xam ne ni si mala bi la jógee baaxul lu gën moom mooy graisse bi nga xam ne ni euh, si garab si gàncax si gàncax bi la jógee maanaam si garab yi muy diwlinu gerte bi wala diwlinu olive wala are wala Euh, soja wala beneen diwlin boo xam ne ni si gàncax bi la jógee. léegi bu nekkee glucide complexe maanaam yi nga xam ne dafa am amidon muy ceeb dugub mboq ñebe bi petit pois bi wala lante bi wala foño ak iñaam bi ak ñàmbi bi comme ñàmbi bi mën nañu ko transformé def ko tóo ak tamit euh, ñàmbi bi wala pomme de terre bi wala patate bi donc yooyu mooy indi suukar suukar bi nga xam ne ni toute la journée nit ki buy dox activité am du sonn maanaam suukar yi dañ koy. yaram da koy utiliser nank nank mais bu nekké sucre bo xamné ni moy comme sucre euh yi ñuy sucré suñu taaye wala café manam sucre simple wala sucre beek bi noonu wala sucre bi nga xamné ni ci boisson sucrée la nekk lolu facilement yaram da koy digérer manam day am sécrétion panc euh, insuline insuline da fay digérer facilement sucre bi donc niki da fay gaaw a xiifaat donc lolu la ñuy wax les aliments de plaisir yaram bi soxlawu ko. amul benn amuñu amul luñ njëriñ nga lekk ko wala ñàkk rek ñàkk lekk sax mu moo gën ndax boo ko lekkee ko faral di lekk mën na indi yenn jàngoro jàngoro yi tamit bëri na trop yu mel ni diabète comme ni ko gisee mën nañ tamit obésité wala yeneen feebar tamit. weeru koor li ñuy faral dégg nee lekk bi dafa yokk loo ko lekk dafa war a wàññeeku fii Sénégal boo xoolee dañuy def li ñuy wax forcing maanaam dañuy lekk lekk lekk ba suñu biir bi di euh, gonfler wala muy sonal estomac bi estomac bi dafa am benn partie bu ndaw la. bu ndaw la ay tissu yi nga xam ne moom moo ko moo ko moom moo ko moom moo ko euh, tënk léegi nag bu nekkee da doon lekk-lekk bu bari biir bi ni mu waroon yëngatoo maanaam biir bi dafa war a yëngatu pour mën a digérer ndax day am sécrétion euh, ay enzyme ay sécrétion gastrique bi nga xam ne moom moo moom moo war a reesal lekk bi biir bu feesee nga naan ndox bu bëri tamit dafay da ngay sonn nga lekk tamit teg boo les tamit graisse bu bëri tamit ndax graisse bi balaa muy rees beneen problème lay doon dinañ jël ay 4 heures de temps wala 5 heures de temps wala mu gën ko yokk donc diggante euh, ndogu ak tëdd daanaka 4 heures de temps maximum 6 6 heures de temps donc diggante boobu daanaka lekk bi du fu mën a rees. léegi lépp loo xam ne lekk nañ ko da ngay yeewu nga xiif souvent da ngay dégg man de damaa reer ba suur waaye dama yeewu xiif ndax lekk bi reesu dafa mel ni koo xam ne lekkul dara yow lekkul dara yéen a wéru koor lu si gën moom mooy booy ndog nga def sa mburu bu yem def sa sa beurre wala sa benn fromage wala sa leneen loo xam ne ni c'est simple waaye waruñu jël def si ay saucisson ay merguez def mburu bi ay omelette ba mu fees omelette dafa bëri graisse immédiatement nga dog rek commencé lekk lu nit loolu da ngay sonal organisme da nga koy forcer forcer boo xam ne ni moom du ànd du si ànd ak yow donc yow yow yaay indil gàllankoor sa sa sa bop ngay commencer mir wala nga commencer sonu wala une deux trois boo demee dix jours 15 jours nga né am nga commencer am na problème ulcère ndax lek bu bon bu ngay lek donc immédiatement niki da fay da fay dafay da fay da fay arrêter kooram ndax amul wér. reet ba mu neen def ceeb mun nga def nga def sa laax mun nga def sa fondé mun nga def sa sa cere waaye diwlin bu mu bëri yàpp bu xonq bi tamit bu mu bëri tamit wala su couscous tamit. wala sa vermicelle loo xam ne ni pat lay doon wala mu doon ceeb wala mu doon dugub wala mu doon mboq wala mu doon ñebe wala mu doon petit pois donc loolu moo gën mu accompagner tamit ak yàpp tamit yàpp bi day yem waxuñu bu ñu lekk yàpp mais na doon quantité bu yem lu gën si yàpp bi moom mooy ginaar wala li nga xam ne ni euh, xeetoon ak ginaar maanaam ay pigeon wala ay kanaar wala façon boobu mooy volaille moom moo gën tamit mooy la ñuy wax viande blanche wala boog buñ amee jën sax

waaye nu moytu yoo xam ne ne dafa am acide tamit légumes yi tamit légume bu mu jël ba am tamit légumes yi amuñu bari bu ñu te interdit maanaam façonu fasinu lekkin bi moom mooy poser problème waaye du kii lu gën mooy ñu yox jër ko cru waaye seen problème bi mooy comme par exemple bu ñu togg ceebu jën fii nii ceebu jën bi dañ jël légume bi pendant quatre heures de temps wala trois de temps dañ koy baaral bàyyi ko muy baax nutriments yi dafay dafay dem maanaam ferñeent yi surtout yi nga xam ne ne vitamine la day gis ñoo xam ne ne dafa bëri tamit yàpp bi da togg togg togg ba fer yëpp dafay dem pomme de terre yi ngi xooj dañuy xooli da pare nga jël ñu xooj ko boo ko xoojee vitamine yëpp si ndox ma lay dem nga dem tuuri ji ko yow loo fay lekk dara yow laa si biir daal na fees mais yow du la amul benn njëriñ moo tax tul le temps dañuy jàmbat ay feebar feebar yoo xam ne ni ñàkk vitamine maanaam ay vitamines moo koy indi ñàkk vitamine yu yi nekk si yaram bi loolu yëpp moo leen ko mën a moytu ceebu jën bi ngay togg neen moytu jël temps bu bëri teg si tamit xooj bàyyi xooj légumes yi xolli ko ba pare di ko xooj légumes kenn du ko xooj muy légumes yi muy fruits yi kenn du leen xooj da leen di raxas nga consommer ko mais xooj waxuñu ko kenn du ko xooj même ceeb bu ñu xooj sax sans dépenser ceeb bi mën nañ koo xooj tuuti temps bu yow après ñu togg ko. li ñuy wax si mbirum koor maanaam boo lëggee pare lan nga war a lan nga war a lekk donc koor dafa doon loo xam ne ni nit ki dafay toog huit heures de temps wala presque dix heures de temps yoo xam ne day toog du lekk donc dafa war a jël ay matuwaay yoo xam ne nii moo koy mbar moo koy permettre mu des si bëccëg bi mu mën see yëngatu te du si am benn gàllankoor loolu nag aussi jiitu moom mooy lekk bi lekk bi war na lekk li nga xam ne ni moom mooy li ñuy wax les céréales céréales mooy dugub bi muy mboq bi muy ñebe bi. Euh, muy dugub mboq wala euh, foño bi donc yooyu mooy céréales yi donc da si war a jël quantité bi nga xam ne ni dina ko permettre mu euh, muscle di mën a fonctionner wu journée bi yëpp maanaam mu mën a dox si ay yëngu yëngum wala ay ay kii activité donc bu dogee ba pare dafa war a lekk benn xam ne lekk bi nga xam ne ni bon mburu la war a jël ak tamit lu tàng tamit maanaam biir bu mu tàng ndax dafa biir bi dafa toog temps boo xam ne ni deful dara. yëngatu deful dara kon tàngaay boobu da ko yee mburu bi tamit mun na jël mburu bu yam wala bu amul mburu mën na jël fonte wala ngalax wala leneen lu mu am daal loo xam ne ni sa am na euh, dugub la wala mboq la wala ceeb la loo xam loolu mooy tax bu pour mu organisme mën a fonctionner correctement mais bu nekkee dafa ñëw brusquement rek dog commencé jël lekk loo xam ne dafa diis comme ay yàpp wala ay jën wala façon yu ndaxay da

nañ si bëri dañuy naan xëdd bi duñ dañuy sonn duñ mën a yeewu xëdd bi dafa am solo te lu lu tax mu am solo mooy lu mu ko waxee sànq mooy céréale dasi da si bu baax foog mu jëm quantité céréale bu doy bi nga xam ne dina ko permettre muscle yi bañ a sonn muscle yi bu commencé sonn rek day am problème donc mën nañu ko farik wala leneen waaye lu gën mooy ñu jël li nga xam ne ni mooy céréales dugub bi ñebe bi wala blé bi muy mburu bi wala farine bu muuti doon tamit wala ñaam bi wala leneen